ñuy dalal tey euh, monsieur Tandian Baba Tandian jiite woon fédération sénégalaise de basketball euh, ñu lay nuyu di la dalal sëñ bi Tandian. waaw maa ngi leen di nuyu di la nuyu Elisabeth di nuyu waa Rewmi FM di nuyu aussi seen kilifa euh, xam nga nit boo ñëwee si kër nit rek kilifa bi ngay jëkk jaar nuyu ko. Mhm. seen kilifa mu dañu jox suma xarit ma soppee ñu bokk aussi benn kuréel. Mm-hmm. Euh, ci patronat euh, voilà ñu koy dalal moom euh, Baba Tandian bokk ci kër gi comme ni mu ko waxee waxtaan wi di ko amal jamono ji nga xam ne basket bi coow li bëri na ci justement ban commentaire ngay def ci dàq gi ñu dàq entraîneur bi di Boniface Ndong. waaw commentaire bi ñu def daal dàq bi ñu koy dàq. Mm. mooy rafetul dekkul c'est la preuve tout simplement man ci sama jàngat. mooy on a affaire avec une personne primitive. ni koo xam ne xamul parce que boo xamul xamuloo. nit boobu mënul mënuloo c'est pas que parce que il a côtoyé le basket nekk na euh, supporter tëggukatu sabar ci kaw stade yooyu bon fexe ba nu mu fexe ba toog ci kaw basket bi nekk mën na yore basket bi il ko fii la xamee ne nag basket bi neexu yore mais lu mu def bëri faak donc dafa rafetlu parce basket bi bëri faak donc ba muy basket ah mm-hmm. di di di toj yow bi di rey boppam ci biir équipe nationale. Mm-hmm. Babacar fa la xëy na peut être lycée la nekkoon kenn xamul fu mu nekk ci àdduna mais je pense que ces gens lyrique respect lu mu def Boniface Ndong moom la def exactement euh, Adidas te Adidas xamul Adidas parce que mus mm-hmm. mus naa ko lire quelque part muy wax mooy Adidas lan la def ci àdduna c'est que ci àdduna quelqu'un a plusieurs fois international plusieurs plusieurs fois champion d'Afrique mm-hmm. un des meilleurs coachs français le meilleur joueur d'Afrique muy wax kii ñu ne lan la def ci àdduna donc ça que kii xamul mais xam nga ñi ñuy tooñ nag. Hmm. ñenn rek moo ñu tooñ moom mooy Serigne Mboup ak gàngoor boobu nekkoon TRBS moom ñoo ñu indil ce gars-là ñooñu li ñuy wax tubaab di wax un monstre ils nous ont amené un monstre intérêt ñu un monstre gis nga Babacar Diagne comme un roi baoulé c'est-à-dire que contradiction lay bañ. Hmm. c'est-à-dire que képp koo xam ne d'accord lu ak moom rek. da lay jéem a xëcc jox la tàngal nga toog ci wetam bu ko mënee bu def ko su ko mënul léegi maintenant nag bu jël la teg de côté mu cër ni mu lay gérer mais il n'écoute pas c'est-à-dire que man man xam nga par rapport ak sama sama vie ak moom man dama xam basket dama joué basket mm-hmm. nekk international mm-hmm. nekk professionnel mais basket bi amuloon ñu ko jiite te xamuñu ko maanaam nekkuñu ci am na mm. am na mm. mais ñu ko jiite te xamuñu ko eh bien euh, nañ ci jël ku mel ni comme Djibo Kor Sène mhm. à ma connaissance mosul Djibo Kor Sène mhm. mais Djibo Kor Sène a été un bon président mais parce que tout simplement il s'est entouré ay nit yu nga xam ne xam nañu basket nga xam ne yow erreur boo ko bëggee def sax ñoom ñoo lay wax ne non président moytu lii di ak li boo xam ne da ngay dégg mais koo xam ne yow yow yaakaar nga yaay yàlla yaay mënitu yow yaay lépp il pour que kenn kenn doo déglu kenn du du la neex def. mais eh, bu yàggee sa ay ay jéye ngay def. kon da nga bëgg ne problème mu basket bi tey Babacar Ndiaye la. waaye mais waxuma la Babacar Ndiaye Babacar Ndiaye ak ak groupe boobu yëpp. du moom rek moom ak ak ak tout son tout son bureau. parce que parce que xam nga Elisabeth euh, mm. bureau lu ñu xam ci bureau. mooy euh, président. ñu fal aussi ay élus. des gens qui sont élus nga xam ne ils ne dépendent président. Mhm. ñooñu bu leen neexee bu ñu gisee loo xam ne doxul ñu ne président bi non lii doxul il faut ñu recadrer président bi. man mhm. problème problème boobu laa amoon suma bureau mais il y avait des gens qui étaient contre mais il y a des gens qui mettaient qui étaient avec moi. mais mais bureau Babacar Ndiaye amul kenn koo xam ne tu es un ñoom ñëpp moo leen nommé te loolu il paraît que il a fait il a fait la demande a Matar Ba et Matar Ba l'a accepté au nom de quoi Matar Ba l'a accepté lu ci yoonu Matar Ba ci loolu mais il lui a permis de faire ça tey aujourd'hui Babacar Ndiaye ce qu'il peut la pluie et le beau dans ce basket là day def assemblée générale su ko neexee mhm. su ko neexul du ko def su defee assemblée générale il ne respecte pas les te les textes qui disent clairement que booy def assemblée générale qui doit mais pas à, euh, pas à, à, à l'envers. Mm -hmm. Le mettre dans, met toujours les, choses à l'envers. Deuxièmement, donc tu dois un bilan financier certifié avec la présence des commissaires au mm -hmm. Donc, il y a une chose de bilan certifié. musul def benn projet yu mel noonu ñu def assemblée générale ba commissaire de compte di toog gisuñu ko dégguñu ko fenn donc et il le fait approuver il le fait valider par les membres du bureau qui sont là et c'est normal ces membres du bureau là ne sont pas des élus c'est des gens qu'il a nommés c'est-à-dire que ñooñu da leen di jox tàngal ak bomoom c'est-à-dire que voilà quand il y a des petits voyages mu tànn la ñu ngi yaakaar pour mu voyage ñu tànn la mm. ainsi de en quelque sorte mm. mais tey jii dafa mel ni da gëm tey euh, communiqué Boniface Ndong bi. waaye waxuma la dama koo gëm mais dama koo gëm à deux cent cinquante pour cent parce que Babacar Ndiaye musul wax dëgg. Ah. dëgg Babacar Ndiaye. moom weddi na ko de weddi na ko parce que nee na aussitôt après toog na ak ay joueurs jot nañ koo wax ñoom seen engagement tey jii. Euh, fas représenté couleur ou drapeau national bi ma eh, ne Elisabeth mm. eh, eh, dama lay wax gis nga ko xam boo xamee Boniface Ndong dëggantaan il n'a pas besoin de mentir Modifa Modifa Ndong c'est un c'est dafa dafa xaalis Modifa Ndong c'est un ancien professionnel il a joué pendant quatorze ans aux États-Unis à Barcelone dans les plus grands clubs bu nga xam ne amul Sénégal sax yu koy joué Modifa c'est un milliardaire dafa am fayda ak fulla yu mag sëkk ba nga xam ne il n'a pas besoin di fenal un petit mec comme Babacar Ndiaye il n'en a pas besoin donc dama lay wax gis nga Babacar Ndiaye bu la wax lu mu la wax te waxul na yàlla benn la rek waxul ah. a mais ñu demee benn dëkk ñu yóbbulee benn hôtel de passe yooyu hmm. booy yi ñu dugg si hôtel bi mais le lendemain bi ñu ko posé posé question ñu ne ko il paraît que góor si jee moo fay mu ne non dama dugal suma carte crédit ah genn wàll bi moo jàll genn wàll bi jàllul ah et puis d'ailleurs dama yóbbaale sama chèque borom oto bi nee na jël mais dafa mën a kat hmm. yow chèque ba chèque Sénégal lu ñu ko yóbbee ay ay ay dëkk yu mel ni ay Nigéria ak ay ay Ghana ak ay Congo ay koo xam kan moo koy jël sa chèque ñu ko la fa xam day jël sa chèque mais carte de crédit la kilifa yi dëggantaan yore carte de crédit la ponkal yi yore comme ci ponkal yi la bokk da carte fu ñu ko war a teg fu ñu ko débuté saa waay dix millions war na mën a jàll mais deux millions mënu jàll mais Gorgui Sy Dia moo fay ba pare nag Gorgui Sy Dia ay tous les problèmes du monde ñu bañ ko fay si laa defe woon sa benn émission daanaka ko mais Gorgui Sy Dia waaw c'est normal parce que dañuy dañuy yaakaar ne am na xaalis dañ ko mën a dugg mais en fait Gorgui Sy Dia yi c'est pas le faire mm-hmm. mais Babacar Ndiaye lu mu la wax tey ba suba il n'est pas fiable waxam c'est pas fiable mais il fait tout pour rester man di Gorgui Sy di Gorgui li li Boniface Ndong wax di dëgg walaay talaay sur que c'est la vérité à quatre-vingt-dix-huit ou quatre-vingt-dix-neuf pour cent. mais tey lan moo tax mu am ay jafe-jafe autour du poste d'entraîneur. xam nga yi hmm. man benn yoon la mos benn yoon mooy Tafa Gueye. c'est-à-dire que jógee nañu championnat d'Afrique ñëw nañu Dakar mu taxaw bon ñu ñu nekkoon ci ginnaawam nag xam na leen parce que à l'époque ñu nekkoon ci ginnaawam ñoo ko daan wax moytul Tandian daf la bëgg a liquider après ñoom bu ñu ñëwee ci ñu ne ma. wax la leneen Tafa ah, Tafa Tafa président dara ci moom. ma ne man man man saaga Tata dama saaga parce que dugg dugg ci ay domaine man maa ko nommé euh, man fi laa ko fekk en tant que entraîneur il a fait des résultats il est champion d'Afrique donc je le laisse là mais du ma dugg ne ko jëlal kii bu jël kii bu tax du jël kii bu tax jëloo kii bu tax day joué ni tax joué ni sama yoon ne ko ci bu bu ko naree def dama ko koy dindi ma dem toog sa place mais dafa malheureusement naa rien compris ñu jógee champion d'Afrique mu ñëw taxaw ci rajo yi fii ak télévision yi fii à ce la seule personne a j'ai sanctionné mais mais moom Babacar Ndiaye mm-hmm. mais dàq na fi Adidas par raison parce que Adidas sa tête ne plaît pas a Matar mais lu tudd doonu Matar lu tax Matar Ba se mêle du basket moom mooy kilifa sport bi mais i n'a pas se mêler de basket mm-hmm. deuxièmement mm-hmm. euh, euh, dàq na fi Cheikh Sarr parce que tout simplement Cheikh Sarr bëggoon na euh, d'après les informations ah que j'ai ah parce ñu nekk ci biir ñoo ñoo di ma ah dafa bëggoon mu jël benn nit ci biir boobu nag du ma wax trop mais ëllëg dinaa wax trop ba mu jël beneen nit euh, Cheikh Sarr da nga guut noonu lañ ko def ak ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen mais moom jàppate na ak a trois ou quatre ans ñu dem entraînement xam nga a deux ou trois ans ñu dem entraînement ci euh, Arena Mhm. Babacar Ndiaye jàppante ak ñoom ñoom Maurice Dour histoire boobu yëg nañ ko ba mu ba mu menacé rek ne leen ñoom ñëw daf leen di effacé di si din leen si di si bi c'est la preuve que Babacar Ndiaye xamul di di di def entraînement di def seen regroupement mhm. mais kooku kooku xuloon boo ko fa génnee suñu fois jamais le remplacer justement tout à l'heure yaa ngi doon wax ci gestion bi euh, dellu ci li nga xam ne mooy rentrée d'argent yi nga xam ne euh, fédération bi justement war na ko am te amul France. gis nga foofu laa bëggoon foofu laa bëggoon a daanelee. Mm. moom mooy li dal équipe nationale Sénégal. Mm-hmm. tey euh, cette fédération là. Mm. je dama koy wax rek. grâce à Macky Sall nañ ko waxte dee. Mm-hmm. Macky Sall lu mu def ci sport bi amul kenn ku ko ci def amul benn président bu ko fi def. il a mis beaucoup d' argent. ay infrastructures yu dul jeex. mais vraiment en qualité et en quantité. ba pare club yi bu def leen dans de bonnes conditions yi nga xamante ne mais man. Mm-hmm. fii fi ay fii ñu dem euh, Mozambique. en championnat d' Afrique. Mm. maa jël regroupement fii pendant plus de trente jours. mais le ministère mini Mbengue moo nekkoon ministère. jële ci nommément Mbengue Ndiaye moo nekkoon ministère amul xaalis. mais seen regroupement maa ko fay hôtel Feto bii nekkoon ay yoon. ils sont pendant trente jours ici. mais Babacar Ndiaye pourquoi il il compte tout sur l' état. bi état bi état bi état bi état bi xoolal euh, Boniface lu mu parce que le a a président avec tout ce que tu as amassé comme argent euh, lors du Afrobasket 2019 te dinaa fi ñëw si montant yooyu. Uh-huh. yow mënuloo mënuloo mënuloo fay des excédents yi nga xam ne ministère nee na man je peux donner que dix millions yow mënoo génne yeneen dix millions nga nga def ko dem nga su fekkee da mhm. mhm. avion am na hôtel mais loolu yóbbul foofu ay joueurs équipe nationale Sénégal maillot Sénégal ñuy tëdd ci ay tronc foofu di tëdd nelaw mais loolu dafa ruus dafa ak gàcce la te gàcce boobu nag biñ la Balaka sur le 5 ans, Babacar Ndiaye le paiera très, très, très, très le payer, nous les basketteurs, il nous le payer Matarba d'arrêter et de recadrer ce Babacar Ndiaye là, mu génn si basket bi mu bàyyi y a des gens man ça ne m'intéresse pas de revenir ça je le dis tout tout à pour ñu ñu ñu kenn bi bon ça ne m'intéresse pas du tout. kon Baba Tandian parewul pour dellusi. ça ne m'intéresse pas je le dis ici man kenn du ma jàpp si baax je dis ça ne m'intéresse pas il y a des gens qui sont importants aujourd'hui ici qui peuvent jouer dans le basket ñu nekk si ginnaaw jàppale leen nag. Mhm. parce que basket bi je le lasserai pas parce que su ma su ma teranga yi ma am ci àdduna bi si sama xaalis trois cent millions de 1989 à août à à 2000 à 2000 à 2013 à 2014 comme suma xaalis la maa ko def maa tey suma xaalis parce tout simplement parce que moom moo may occasion bu xam ne naa ko def mais ñoom championnat d'Afrique 2019 moom Babacar Ndiaye moo taxaw ci télévision bi daal ne l'état la daal ne trois neuf cent millions état état euh, entreprise yi jàpp nañ neuf cent millions neuf cent millions nga yokk ci bu euh, ma ko mënee début final yeeg quart de finale bi nga yokk ñu jour final bi y avait vingt cinq mille personnes dans la salle. Mhm. ñuy fay ay cinq mille ñuy fay dix mille. vingt cinq mille personnes yooyu boo ko xayma à peu près nous à la volée on dit c'est à peu près entre cent quatre vingt deux cent millions. te y avait dix mille personnes ci biti ñi nga xam ne dañoo jënd seen billet la la presse dit sept mille mais nous on pense que c'est dix mille. parce que la fa nekkoon ci biti moo bari. ñoom ñoom dañoo jënd seen billet mënuñu dugg ñooñu lu tax ñu di jaay leen billet ñu sachant que le stade était rempli dañu leen tuut c'est du vol. Mhm. deuxièmement Babacar Ndiaye. Mhm. cet argent là il faut rajouter équipe yi ñëw ñu jógee bitim réew di ñëw jugee ci championnat d'Afrique bi mm. am vingt personnes wala vingt personnes chaque personne day fay soixante dollars multiplié par le nombre de personnes yu délégation bi yore multiplié par le nombre de jours mm. nga xayma loolu et nga xool maintenant multiplié par le nombre d'équipes yi xam ne ñëw nañu Sénégal mais yooyu boo ko xayma bi ñu ko xayma c'est à peu cent vingt cent trente millions cent cinquante millions parce mm-hmm. que xaalis ñu jugé ko ci fenn ñuy document financier Maïssa Fall si def l'ancien président de la commission des finances yore ñu jugé ko ci fenn bokkoon si si bureau fédération mais la fédération les textes de la fédération sont très clairs Elisabeth mm -hmm. c'est-à-dire que booy def comité directeur da ngay saytu les comptes financiers du club les comptes financiers doivent être par un commissaire aux comptes c'est-à-dire toutes les factures déposées lii nga jot lii nga dépensé lii moo def ainsi mm-hmm. le commissaire aux mu certifié ko bu ko le jour de l'assemblée générale le commissaire aux day ñëw toog a mm-hmm. commissaire aux comptes musu toog ne sont jamais certifiées. Et, et ça Matar Ba le sait et Matar Ba accepte ça et nous refusons nous disons à Matar Ba certifié dootuñu ko nangooti et nous voulons savoir. Mhm. les neuf cent millions xaalis boobu mu récupéré mais Afrobasket mi la ko dugal man di jóge dafay fen waxul dëgg. da ko koy laaj nii rek wala da am ay action yi ngeen nam ma def. naa luy Afrobasket organa Mali ak Côte d'Ivoire. Mhm. def naa quatre Afrobasket mais musu ba dépenser plus de cent soixante neuf millions la dépensé moom laa amoon mais pourtant j'ai terminé troisième ba équipe bi dem euh, championnat du monde Espagne alors Babacar Ndiaye il faut mu wax ñu ne naan xaalis ba fan la ko dugal bi ñu ko laajee xaalis bi xam nga lan la wax mu ne non moi je vais compte à qui de droit qui de droit c'est qui ah je suppose que ça doit être ministre ministre moo lay jox xaalis après tu vas lui rendre compte yéen ñaar nga na dii na ma non ñun danañ ko yóbbu fu ma nekkee benn. yéen ñan yéen ñan parce que y a ce qui n'est pas très clair là-dedans. yéen le Saint Coran. yéen ñan koy yéen ñan yéen a koy yóbbu fu ma xam doonee benn. ñun waa CRBS les anciens basketteurs. dama la bu fekkee dañ ciy bàyyi suñu alal dinañ ci bàyyi suñu alal mais danañ ko yóbbu si yoon moo ñu xaalis basket bi fan la jaar. Mais pendant que lui, il s'amuse avec la Renari Basket, l'équipe nationale du Sénégal est en train de se coucher sur, les carreaux de l'aéroport du C'est ça que nous refusons d'accepter. Pendant que lui, il avec l'argent du basket, ñu jël ay xaritam yi ay copain yi benn waay il paraît que même le chef de délégation la benn copain la boo xam ne mu dem tabb ko ligue ligue de ligue de Ziguinchor xaw ma parce que waa ji dafa aussi doom. monsieur le président de s'il vous plaît. Uh-huh. fexe leen ngeen basket Sénégal parce que basket Sénégal daane daaneel na ko. li nga def bi de fii Sénégal yi ñëpp gis nañ ko mais da nga ay résultats da nga ay ñuy jox uh-huh. par rapport ak jaga def si si si bu fekkee ne maintenant nag ses collaborateurs yëngu-yëngu des comme ay ñoom Ndongo Ndongo Ndiaye xam ne ils tournent autour du président c'est des conseillers du président. mais uh-huh. Ndongo Ndiaye tu l'entends nulle part. ay problème day am doo ko dégg xoolal xoolal coow yi am fii ak Bassirou bi hmm. mais Ndongo Ndiaye kenn dégg et pourtant si c'est conseil du président palais palais présidentiel la def am ko bureau am ko lépp mais kii ban la am ndax da di déglu tamit ndax président da di déglu ba ñu day déglu Macky Sall kon kan mujj dana xam Macky Sall Macky Sall day déglu mais bu fekkee yow yow yow yow yow ci affaire bi boo ko defu sa yitte soo ko defu sa fay rek sa fulla mais bien sûr que doo dem si Macky Sall di wax ak moom mm-hmm. mais ñun ce que euh, Elisabeth mm-hmm. euh, euh, gàcce bi ji Babacar Ndiaye teg avec l'équipe nationale du Sénégal mm-hmm. mais bàyyi rek d'autres personnes vont parler d'autres personnes vont parler xam nga vous avez lu si ñëw bëggoon a jël avion dem yoonam mais gis nga gis nga ñii dañuy def leen neex c'est-à-dire que ñu ngi yàkkamte euh, euh, fenêtre am ñu ngi yàkkamte euh, événement am à l'étranger et ainsi de suite te am na leneen loo xam ne sax ay yeneen problème yoo xam ne sax je crois que waxuñu ko te te yooyu yëpp danañ ko suuli danañ ko wax Matar Ba s'il vous plaît dites à à Babacar Ndiaye de venir faire un débat avec nous nous voulons un débat bu ballon yi bëttee ñu def espoir raccoré ci ballon yi pendant ce temps ici mais il a une fédération qui s'amuse avec ku ko neex bu yóbbaale waaye yow bu leen ma taxaw dinañ ci dellu siwaat xam naa ni mu gën a yaatoo ci émission parce que liñ ñu cëraloon ci eh, waxtu ay eh, jeex na ñu lay jaajëfal bu baax a bi Baba Tandian incha allah rabbi